baaraam nga teg ko di ko gis du ma waxantu hmm. avant lii di am dama ne la ñii seen stratégie politique bi opposition bi teg sa hmm. va faire mal la majorité parce que suñu continue woon ci seen logique sax fi la doon gën a pire on parle de la coalition du siècle voilà su fekkoon ni dañuy def sax benn liste national nga xam ni wàllu laa ak yeewi là ce serait une razzia électorale regardez je donne des faits vous allez sur les élections locales tu vas te retrouver ce que Benno Bokk Yaakaar avait obtenu aux élections locales loolu la amaat moom la maintenir mais ici sur l'intercoalition de manière intelligente je dirais euh, la méthode de Tchefal ils vont aller à Pikine ñu ne voix yi ñu am yëpp ñu joxe consigne nañu voteel wàllu yeewi bu mu fi bu ko kenn laal même su fekkee minimum ñooy dem voté yeewi loolu moo tax foofu yokku ñu ne la soo ñëwee tel département li nga xam ni waa wallu moom lañ ko fa am jàpp nañ ni yeewu moo leen fa ëpp doole waa wallu du ñu présent mais nañu bàyyi waaye yeewu askan wi dem yamuñu si même dans les combinaisons des listes da ngay dem par exemple Pikine wala Guédiawaye on va prendre des gens de yeewu askan wi prendre des gens du wàllu consigne de vote boobu mu jàll. comme donc moi je pas là parce que. xaw ma luy am ëllëg wala lu nekk seen xol wala lu nekk seen dënn mais stratégie bi ñu def sa a été une stratégie payante. ça feeñ ci résultat yi. voilà et loolu moo reflété ci résultat yi maintenant euh, biir assemblée nationale lu nekk mën na fa am. parce que mais foofu aussi la Macky defee erreur. waaw ma ñëw après nga ñëw si. après nga ñëw si erreur mooy bi nga toll nii la. parce que depuis parrainage bi am na des candidats yu mu Ouais, la société civile et Bougane bu leen bàyyi woon ñu dem lii kon du am d'accord voilà d'accord si Macky moom moom boppam bien sûr mais kii ko moom tam Macky lañ ko bien sûr tamit bi Macky Macky ko yoroon waaw bon moom moo yor bagage yo tamit aussi d'accord li ma la mën a wax waaw su fekkee da ngay observer nga xool sur des faits c'est-à-dire l'opposition est parvenue à capitaliser tout son électorat sur un même pôle cest à sur tel département consigne bi soit c'est Wallu soit c'est Yewwi et même dans la communication d'Ousmane Sonko l'autre jour ba ñu nekkee nu melaan dama la wax communication politique bi daf ko réussir parce que dane yeneen liste yëpp benn baax Yewwi moo fi baax ak Wallu ce qui fait que pour mën a capital les gens ont voté pouvoir opposition donc stratégie boobu ñu teg ça a été une stratégie payante loolu moo leen permettre pour une fois opposition bi egg à ce niveau maintenant lii am présidentielle yi dafay déterminer wu donc euh, camp bu nekk ci sa comportement ci yow yaa ngi projeté wu ci élection présidentielle yi nga xamante ni moom mooy ñëw maintenant c'est pas parce que dañu am projet bu jëm par exemple Pikine ñu xam ni projet bi c'est d'intérêt national mm-hmm. lu amal njëriñ askan wi la mais foofu pour man du pouvoir wala opposition soo gisee lii njeexital bi lu baax la ci réew mi mais foofu du ñu xoolati pouvoir wala opposition li ñuy xool mooy député askan bi la moi je considère que personne n'a intérêt aujourd'hui ñëw lu Sénégal bëgg a teg ñii ne nañ ko xajamal su boo ko defee yàqaloo kenn sa bopp nga yàqal parce que les gens vont se dire que yàqkat la hmm. beneen accord bi am te nit ñi duñ ko boole ci analyse bi moi je crois que aujourd'hui Bougane euh, son opération il l'a réussi hmm. première chose c'est-à-dire opération lavage teggituuma commencé nañ ko woon am fu ñu ko féetalee nangam mu gën a radicalisé wu et puis il a contribué campagne bi donc finalement euh, débat au troisième euh, fu ne mu wër fa parfois mu dem tantôt candidat bi de opposition yeewe bu dee moo fa nekk mu ne yeewe bu demee fee mu ne wàllu je crois que moom aussi son apport feeñ na si et d'accord opposition bi dynamique bii ñu mos ñam naa ko neex na bàyyi naa ko doo ko dégg donc gars yi ils vont resserrer la rangs ñeneen ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci kujje gi te peut-être gisuñu woon seen bopp mhm. si les grandes coalitions aujourd'hui peut-être dinañ amaat beneen considération pour gis ne ñoom bi ñu demee peese nañ seen bopp mais tey lii lañ am ci ci lim donc pour man euh, élection bi bëri na ay jàngat yu ñu ci mën a tirer maintenant euh, Macky Sall tey pour plus de stabilité moom moo gën a soxla am cette stabilité et aujourd'hui ils sont obligés de composer avec toutes les forces du pouvoir comme de l'opposition parce que au sein de l'Assemblée nationale kenn ëppalewu fa kenn sa morom ñaari force yëpp dafa équilibré. d'accord mais là là où je voulais compléter Cheikh Omar. à hmm. propos de euh, la participation de Bougane. Euh, Kader yaa ngi naan léegi Macky a commune une pour man <laughs> pour man sax Macky a bien fait parce que Bougane su participer ci non hmm. non xamul non pour lui-même euh, Macky a fait pour bien pour lui-même. parce que si Bougane bokkoon. dis-toi que l'écart se, se serait encore creusé davantage. Mm -hmm. parce que man li ma gis et ça je l'ai vu moom dans mon propre quartier. il y a des gens yoo xam ne ils sont abstenus parce que ils ont dit que. Bougane bokkul Bougane Bougane. il a obtenu 220 voix. Bougane Bougane bokkul je sais que ce sentiment là. ba bi ma gis ci maire mhm. je suis sûr et certain qu'il a quelque part où aussi. ñeneen il y a des gens qui sont qui ont refusé d'aller voter parce que simplement ñoom gisuñu seen leader moom. moo tax ma ne moom mhm. su ci bokkoon parce que Bougane au lieu aussi al ci coalition la nekkoon. Mhm. ci coalition la nekkoon moo tax ma ne davantage le président Macky li mu ko bloqué nii moom il a favorisé plus. son propre camp plutôt que le camp de l'opposition parce que bu ci bëggaan bokkoon cest à que opposition bi ndam bi ñu am dina gën a métti que li nga xam ne moom la ñuy gis présentement Saliou bu ci ah. bokkoon bu ci bokkoon surprise am pour man très sincèrement quelle surprise parce que beaucoup peut-être ont voté parce que amatuñ woon fu ñu jëm xamatuñ fu jëm il a fallu que peut que Bougane génn joxe consigne pour que ñoom ñu mën a def am na ñu ko yaakaar am na ñu ko yaakaar bëri na tey bi ñuy dem élection yi beaucoup pensaient que ni beaucoup pensaient que euh, du am selon les dires de euh, euh Ousmane Sonko le 31 juillet élection du am. Mhm. su ma bokkul du am. sunu liste bu jàllul élection du am. am mhm. foofu lañ taxawoon. yàlla ko yow. moo ko wax. magum jëm non non man ma ko gëm. man ay la may def. non ay la may def parce que. dama naan kii parewul ci dem. d'accord amul mu jëm kii fu mu toll nii déjà ci ay menaces la nekk. mais ñi nga xam ne gëm nañ ñu ñoom mën nañu créer changement dañu ne woon dañuy dem te ak lu mën a am. élection dina am même bu fekkee ne si justice populaire moom mooy am gars yi génn dem taxaw ci urne yi bureau de vote yi centre yi boobaa par force day am. mais mais mais pourquoi Bougane ak ak gëm sa du moom rek la ñu recalé woon. mais ils ont participé actuellement y' gens de Diambi Gox des gens comme Serigne Mboup. mais euh, mais ànd nawle mais Simon si euh, je l'ai cité et cetera et cetera non Simon boo gisee ma cité ko. boo ko. waaw c'est-à-dire euh, bëri na ñu ñu recalé. mais wolof Ndiaye dafa ne dompat ci sot la bokk c'est-à-dire euh, moom il a campagne il s'est déployé hmm. mais man ñaari jàngat laa ci am deux pour man hmm. euh, premier jàngat bi d'abord mu ngi doon wone ni moom ci kujje gi la bokk et malgré que recalé nañ ko il faut moom mu contribuer parce que jàpp na campagne pour le compte voilà, de l'opposition parce que pour moom et, ah. mais beneen bi mais hmm. deuxième point ah. bi deuxième bi ma si gis mooy pour wane ni euh, lu ñu ma mën a jiin man fii laa féete wane ancrage am dans l'opposition mais troisième bi euh, Bougane n'a pas pu participer aux législatives peut-être su participer aux législatives tey dina am score parce que euh, pour la première fois mu bokk élection locale ici avec deux cent vingt mille voix maintenant à lui de se projeter si mille vingt quatre mais tey am na ay petits contentieux yooyu pour man c'est des contextes politiques mm -hmm. et parfois euh, li olof Ndiaye di wax ñi bokk teen ñooy laxasoo ay goj am na fu nit yi di toll chacun s'oublie euh, les problèmes d'ego un objectif en commun vous force non négligeable mhm. et que tey ko a boole ci ci ah ko jege ça c'est clair il son son son exemple quand même joxee ci Bougar hmm. analyse bu jar a bàyyi xel bu pertinent la ci lu ma jàpp parce que tey imagine Bougane demoon élection oh. ñu ne bokk gis-gis am na nàngam benno am na nàngam yeewi am na nàngam gëm sa am na nàngam